waa من قدمني أوسارا fanajini waxit la aw saara commission sociale ci njiital sëriñ Mourtada moom Serigne Abdoul Fattah barab bii nag Touba ca kanam ci dox yooyu nga xam ne daf koy faral di dox di nemmeeku yi cas sociaux yi nga xam ne ñoom Serigne Mbaye Cissé ñi ñooy dem altine wër ba fekk koo xam ne nii dafa nekk ci situation boo xam ne ku yeyoon dimbal la ci la ñu tàbbee ci barab bi ñu nekk fekk soxna si ñeent doomam yi kenn ku ci nekk yor jafe-jafe boo xam ne nii moom mu yor leen boroom këram amee tawat ba sëgg it dab ko Touba kanam nag bi mu doxee ba yegsi ci yaakaar naa ne déglu nañ soxna si bi ñu ñëw fii benn néeg lañ fi fekkoon tey gis nga nii nga xam ne noonu la kër gi mel yaakaar naa moom tungu ne du teew ñuy nataal ndax li Touba ca kanam bëgg ci yii muy wane rek wax naa leen ko sànq dafa bëgg ñëpp xam ne ñu yeyoo ba ngi nii ñu yeyoo jàppale ngi nii du tànn du dañoo tànn ay barab yi gën a xeebu di ko wane déedéet dañoo bëgg nit ñi bàyyi xel fii nag defe naa ne Serigne Mourtala ah li fi Touba ca kanam doon sàkku commission sociale mel na ne am nañ ko ndax yaakaar naa ne xale bi nga xam ne moo amoon jafe bët sax lijjanti ko ne mu ngi toog ci wetu yaayam ki nga xam ne moo amee tànkit ñi ngi ci eh, sunu ñaari jëwriñ yi nga xam ne tubaarkàlla macha allah yëkkati woon nañ ay kàddu yu am solo ñaanal Touba ca kanam yaakaar naa ñaan yooyu eh, daal na Touba ca kanam kon soxna si yaakaar naa ne waa Touba ca kanam dellu siwaat nañ commission sociale bàyyi leen xel ba tey ci ndimbal yoo xam ne ñu ngi ko doon joxe lan nga ñu mën a wax rek ci bi fi Touba kanam ñëwagul ak commission sociale ak bi ñu fi dikkee tey. leen sant yéen waa Touba ca kanam ndax kër gi kët bi ngeen fii ñëw am na nu meloon waaye ko xool xam jàpp la ngeen ak yonant bi yéen la ndax yéen a ma jàppale defal ma lii lépp wane ma tamit nit ñëpp jóg jàpp ci biir sant Mbàkke toogaayam bii mu toog fii rek ëppal na ma lépp waxumaa nag mu booleeg dindi alalam di def ci sama njaboot gi ndax am na ñu bëgg ab sëriñ bu sant Mbàkke dugg ci seen biir kër rek amuñu ko waxumaa mu ñëw toog ci sama digg ëtt bi te lii du benn doonul bennam ñëw ay ñëw ñëwam a ngi nii ba mu njëkkee ñëw ak bi mu ñëwee xam nga ne warew na ndax ba mu njëkkee ñëw benn néeg képp la fi fekkoon mu ngi nii néeg yi pare na ñaa ñetti néeg yi pare na a ngi fi waañ a ngi fi macha allah sama néeg bii matériel bi fi nekk dan maa woo doo ma jox ma ko ki ma ko jox nu mu sax wax aw turam te lépp ginnaaw yàlla yéen la ndax yéen a ci jëkk a jàpp te yéen a ma wone yéen waa Touba ca kanam bu doontan yéen du ma am lool. lu ma am ginnaaw yàlla rek ak jëm sëñ Touba borom dëkk bi bu ma yoboo ne yéen waa Touba ca kanam sant naa yëpp. sant kilifa kilifa diina yëpp sant kilifa aada yëpp waaye jëkk sant gi nag mooy Touba ca kanam rek. xale bii bi mu juddoo dafa amee cataracte papaam moom it amee amee ay bët bëgguma ko sow xanaa feeñal ndax boobu papa ji damay bañ xol xolam jeex mu bëgg kaa faj te du ko mën a faj waaye ma koy demaale di ko demaale ba ne ma sa doom ji boo ko fajut day dem ba dootul gis bi ma ko bi ma leen ko expliqué ngeen na ma dinañ ko jël à charge yéen a wàññi xaalis mat. ñu jox ma ma yóbbu ko Dakar ñu opéré ngeen ne ma deel topp ay traitement am lu ci war dinañ ko def booleeg bi ngeen fi ñëw lu nit di ittewoo ci dund rek indi ngeen ko lu nit di ittewoo ci këram rek indi ngeen ma ko fii kon nag moom dara naqareetu ma dara dara naqareetu ma ndax yéen waa Touba a kanam. ma ciy dolli rek mooy jëmale si ci yéen waa ca kanam maa ngi koy tàmbalee ci sëriñ Abibu boobaay ba ma fi jógee maa ngi nii di fi door a tegaat sama tànk kere bi ma ñëwee dafa jooy na ma wala nga am ay bët ba xooltuma kër gi ni mu mel tey ak ni nga mel ni mu melan bi nga fi ñëw ma ne ko lépp gisuma ko sama samay bët waaye sama xol gis na ko ndax maa ngi nii bu ma duggee ci biir néeg bi mën naa fee yendu fanaan fi ba suba te du ma génn néeg bi salle de bain ci biir ay uppukaay yi ci biir lépp a ngi ci biir te lépp lu mbàkke ci seen seen bu leen mbàkke maam ak ak seen jëf kon man mbàkke xañ na sama xel ni sama bëri yu sëgg xel sëgg ba mënumaa wax li muy ëmb ci sama yéene lépp waaye yàlla mi nga xam ne umpalewul dara ak Serigne Touba yoon wi ngeen aw yàlla bu leen benn pakk dak xañ na sax tuut naa ci toog di leen ñaanal waaye nag sama yéene laay feeñal ndax eh, taalibu Cheikh Ibrahima Fall la taalibu Cheikh Ibrahima war a toog kër Sëñ di ko wax leen waaye nag dinaa leen di jéem ñaanal ci lu baax lii ngeen sumb àdduna sépp xam ko yàlla bu leen bennam ndag dal lii ngeen def ci sama kër gii def ko feneen ak feneen yàlla na ko Sëñ Tuubaa mi tax ngeen def gis ko yàlla na ko Sëñ Tuubaa gis. ñu bëgg ci doole Cheikh Ibrahima yàlla nañ ko yàlla defal bari Cheikh Khadim kontaan naa ba dama kontaan ba mënuma wax auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi ñaanal seen Muntaxa Mbàcke yal na fi yàgg te wér seen Abibu Mbàcke yal na fi yàgg te wér seen Mamoor Mbàcke yal fi yàgg te wér Tuubaa sa kanam amul sa fay yàlla am sa fay yàlla mi am sa fay yal na la fay la ma la waxoon nag ba tey jóg ma fi mbiru war a waay ndax du ñuy dem fenn dañuy sonn ba tey fi ne nii oto bu ërité mu bañ dama la waxoon ba tey jóg ma te am naa yii am naa pas ne yéen waa Mbàcce Mbàcce yi ci si jàpp rek yéen ay borom baax leen seen moom moo leen liggéeyal lool kon nag yal na leen seen Tuubaa teral teeru leen yaakaar naa ne dinañ mu wutal a boor waay si barke Sëriñ Xaadim yal na leen yàlla defal jàmm musal leen ci seytaane musal leen ci ndox barke seen Fall seen abi boom seen Fall yal na fi yàgg tëwét seen abi boom seen Fall yal na fi وكل من قدمني أوسارا فنجني وخله أوسارا